état kan mooy Ablaye Wade euh, professeur Laman laaj nga ma laaj bu rëy boo xam ne ragal naa ne duma am tontu la xanaa le panafricaniste Lamine Faye moom moo ñu wax kan mooy Ablaye Wade ndaxte c'est vrai xañ na buñ ma tegee fii tey te ñeneen mënoon a toog sama place wax ci moom yàlla dafa dogal euh, ci dundam ak jaar-jaaram ma bokkoon ci ñu ko gën a jege ba may nekk ndaw laa nekk ak moom maa ngi doon première lycée Faidherbe yàlla di dox li ngay wax léegi man commissaire aux enquêtes économiques la ENAM laa génne ba ma admee ENAM d'ailleurs dama ñëw mu bëggoon ma jël ci cabinet avocat mais ci gàttal rek bañ waxtaanee mu ne ma ce serait pas mauvais que ñu am ay cadre dans l' administration <coughs> sinon man dama doon dem nekk avocat ci cabinet bi Abdoulaye Wade ma nekk directeur de cabinet bi mu nekkee ci gouvernement du Diouf 1985 ba 1998 balay boobu fekk na maa ngi moom ñu bokk nekk prison lu juróomi weer di yeewandoo di fanaanandoo mu jël nguur gi def ma ministre def ma ministre d'état man maa bu ñu nekk ministre d'état directeur de cabinet waane li ma laaj dafa mel ne bi ma émission bi danaa ñëw ci Youssou Ndour tuuti parce que su dañ koy sant di ko gërëm émission bi moo ko yenul boppam moom ak suma xarit maître Madické Niang di sant suñu mag Doudou Wade dugal ci loxoom li may wax ci su léegi danaa ñëw ci li nga ma laaj est-ce que xam nga ne Lamane waaw Ablaye Wade def na Youssou Ndour chef d'état quelques minutes <laughs> moom xam naa xamu ko du ko jàpp. Hmm. waaw. Hmm. laaj ma nu mu demee. nu mu demee nu mu demee monsieur le ministre. dafa ànd ak Bono. Hmm. le grand artiste. seen xarit. mu ñëw ñaan audience pour gis président Ablaye Wade président may ko audience boobu bis boobu man rek maa ko teewee ak yusu ak Bono. xam nga bono kilifa la. wallaay kilifa ay. bono ñëw wax ak président Wade ba jeexal wax ko waxu kilifa président war ko tontu mu toog bi si yàgg mu ne Youssou Ndour mu ne ko mu ne ko tontu ko. dégg loolu waay. Ah, ko ñeme responsabilité. xaj na man sax su ma ko waxoon ah président nangam nangam. mais responsabilité bi ko président Abdoulaye Wade jox chef de l'État hmm. Youssou dafa nangu jël ko dal di koy tontu li ci gën a doy waar te gën cee neex ba ko Youssou tontoo ba pare tontu ko tontu chef d'État la Youssou tontu président Wade yokku ci wàññiwu ci kon xam nga ne kooku hmm. solal na ko mbubbu chef d'état ci jataay boobu voilà danañ ci ñëwaat ci yeneen ci Youssou Ndour jërëjëf Ablaye Wade nag man de su ma ko doon tënk rek xanaa Lamine moom ma ciy jàppale dama naan euh, sénégalais la mais boo xam ne bii xol bi Afrique moo ci nekk moom lañ ci dessiné waaw c'est-à-dire c'est un sénégalais qui porte un cœur africain Ablaye Wade jullit la murit la cest lu tax ma ne jullit la murit la saadix la loolu ñëpp xam nañ ko mais buñ dajee yu mel nii am na yoo xam ne it xañ na nit ñi xamuñu ko war nañ koy wax am na yoo xam ne nettali na ko moom ci boppam di wax toujours li daje ci man ci sëriñu murit fi ma jaar mu nekk ndaw bàyyam di ko téye di ko yóbbu Touba ba mu nekk docteur sciences économiques droit waxul ak baayam baayam téye ci loxo ne ko man day Ablaye mënumaa def président de la république mënuma la ko def mais danaa teg yoon woo xam ne boo ci wàccul danga ko doon yóbbu ko Touba jaarale ko Daaru jamono di ñëw ba mu dugg ci loxo sëriñ Fallu yooyu yëpp dañ koy tënk rek parce que nettali na ko bu benn du ñaar mm-hmm. jamono di ñëw ba mu dugg ci loxol sëriñ Saliou Mbacke suñu bàyyi ju baax ja mm-hmm. yàlla na yàlla yokk leeram mm-hmm. gis nga relation Ablaye Wade ak sëriñ Saliou lu doy waar la xaw ma ci lépp mais xam naa ci tuuti bii sëriñ Saliou nekkee ci xilaafa gi ba yàlla mel ne dafa war a dogal. moom la ñuy wane ni gis nga président Abdoulaye Wade da ngi ni sukk sëriñ Saliou. waaw noonu sukk ci kanamu sëriñ Saliou. mu wàccub liggéey. benn bés ma ñëw rek. mu ne ma Habib Sy ma ne ko monsieur le président mes respects mu ne ma xam nga sëriñ Baara ma ne ko déedéet xaw ma ko de mu noppi ñu tegaat ca diir def naa une semaine fukki fan ma ñëwaat mu ne waa bib si xam nga sëriñ baara ma ne ko wax dëgg dégg naa ko may xaw ma ko rek mu gëdd ma le vice xamuloo ko da nga ko xamee dégg li ma la wax waaw laa ilaaha illallaah allahu akbar ah, góor gi de def na ma lu ma mosul def mm-hmm. yàlla dogal nag ma dégg sëñ Baara ci jamono jooju comme da daan dem Mbàkke Baari te sama gox la ma dem fekki ko fa ñëw ne ko ah, sëñ bi de sama bàyyi daf maa mere mu ne ma lum la mere ma ne ko damaa gis ne ku la xamul mu mere ko dama bëgg nag léegi ñu fasante coloré mu daal di kontaan ne ma fasante coloré googu ngay wax ci man de nangul naa la ko bis ndekki tey dindit jaaru takkal ma ne ma jaaru bii la sëriñ sa sama baay alaaji fàllu daan joxe jaaru baa ngi nii jërëjëf jërëjëf jërëjëf si ñu teg ci weer mm-hmm. sëriñ Saaliw wàccob liggéey allahu akbar jërëjëf jërëjëf jërëjëf si loolu mag ñi <laughs> loolu dafay wone beneen image boo xam ni looloo tax ñu laaj la kan mooy président Abdoulaye Wade mm-hmm. ndax dafa dem ba nag digganteem ak kilifa diine yi danañ ci ñëwaat. parce que <laughs> digganteem ak kilifa diine yi. waaw gis nga ab président la Wade. naam murid la Sadix. Mhm. mais dafa làmb Tiwaawoon. Mhm. làmb Ñaseen. Mhm. Ceneba. làmb Ceneba. làmb Laayeen. dégg ngeen ko mu nettali ba léegi ba tey. ca teesam ba mhm. ba mu koy def mhm. yàlla boole ko géwant ak suñu baay bu baax Alaaji Abdul Aziz baax yàlla na yàlla yokk leeram mu ñaanal ko ba tees boobu Lamine mii xam naa moo a gën a xam tees ba sax tees baa ngi nii indi naa ko ba léegi ñu ngi koy wax ci àdduna ah, loolu c'est une exclusivité waaw euh, ministre Amadou Lamine fay moo indi la thèse du président Abdoulaye Wade gis nga gis nga gis nga buñ daa dem Tiwaawoon cetttët moo nekk nii bu ñu ba économie de l'ouest africain enquête et étude président Abdoulaye Wade présidence africaine moo ko édité. Mm. bu ñëwee ba ba Serigne Mansour recevoir ñu ba pare ndeysaan ñu yendoog Abdoul Aziz Al Amin. Mm-hmm. ak xalifa bi tey suñu xalifa suñu Serigne Serigne Mbaye Babacar si Mansour. Mm-hmm. yàlla fa yàggee yàggal te wér. ak suñu mag ja Seydi Hadji Malick Sy Maodo. Mm-hmm. dañuy def añ yu neex waxtaan woo xam ne kenn mësul gis ni mu mel. bu paree am na benn néeg bu nekk foofu la ko Abdoul Aziz di jox mu tëdd fa sieste parce que nag yenn ci secret Abdoulaye Wade mooy bu añee pare foo jaar mu sieste dana def quinze wala vingt minutes jërëjëf mais bu bu bu bu paree mm-hmm. benn bés mu ne ma ah man di bëgguma dellu ñibbi fii dafa neex bëgguma neex mooy woon rek ni mu toll oh. jërëjëf jërëjëf jërëjëf buñ koy euh, wax fii ba suba duñ <laughs> jeexal monsieur le ministre d'état loolu moom xam naa ne euh, professeur loolu defal ko defal ko euh, li ñuy wax colloque <coughs> mhm. moom rek moo moo baax dàmbal ko dàmbal ko lu man ñetti fan ak li yëpp dina jaadu insha allah dina jàddu ci moom <laughs> colloque dana jaadu ci moom mhm. lu ñuy préparé lay doon waaye ni nga ko waxee sànq rek ni ko boroom kër gi waxee euh, ay baax baax la ñuy xool ci ñi nga xam ni moom la fi invité ci bopp ba léegi si. ki nga nekk. Euh, kan mooy Abdoulaye Wade tontu nga ko sànq. ah nga nga may ma. damay parce que bu wax ci Abdoulaye Wade dañuy damay damay xaabaabal. <laughs> mais ni som dafa am léegi lu mu wax. way mu way euh, duma ma géewal Abdoulaye Wade du ma géewal. waane comme dafa wax ci maamam maam lu ma ci xam mm-hmm. ca waalo mm-hmm. nee nañ njaajaan njaay mm-hmm. xam nga moo njëkk fa yow falu waalo ba mu génnee ca dex ga la ca xew dañ koy gàttal ca mee ngeen booy bañ ko fabee ne ko léegi yow lañ jiital ñii ne douzième siècle la ñi ne quatorzième siècle version yi nag ci mbañ wàdd bari na mais bi ma ci gën a jàpp mooy nañ ne njaajaan bi mu jógee seize bi mu defee seize ans falu ko Kajoor bëgg a génn nag wuti Jolof daf ne woon nañ ko fayal falal rakkam ji ñuy wax barka boo mm. mm. waane